yeesu def na ay kemaan yu bari am ñi gëm ci moom be di ko topp muy weral nit ñi ñi feebar te di jàngal nit ñi yoonu yàlla di wax nit ñi lépp li yàlla bëgg te daanul def benn bàkkaar mësul def benn bàkkaar dafa doon def toujours li ko yàlla sant dafa doon def coobare yàlla bés bu nekk te boole ci njub ak mbogeel borom bi am ñu bari ñi ko topp di dox ak moom wante amoon na ay njiitu diine sëriñ yi ak xutbakat yi dañu fiiroon ci moom lool xutbakat yi dañoo fiiroon yéesu lool te bëgguñ ko woon a gis benn yoon ñu ngi ko doon fexeel sax pour nuñ ko reyloo wante yeesu mu ngi doon wax lépp li ko yàlla sant te di ko jàngale ak sañ-sañ ak doole ñu ngi koy wut arey ñu ngi koy wut a jàpp ba dem boole ko soldaar yi soldaar yi jàpp ko dóor ko tufli ci kawam solal ko sax benn maxanda boo xamante ne dañ ko solal yéesu te mu doon ay dëj kese maxanda dëj boobu lañu solal Jésus ñu mel nii dañ koy pini te yeesu deful dara lu bon ndax jàngal nit ñi yoonu yàlla soldaar yi jàpp yéesu daaj ko ci bant ba te di ko ñaawal ba niñ ko doon defee ci seen aada ku def lu bon ñu daaj la ci bant waaye wóor na ne yéesu defuloon dara lu bon xanaa kañ di jàngale yoonu yàlla ak def lu baax te sopp yàlla di weral ñépp ñu feebar wante bañaalem yi bañ nañ ko ba dóor ko ci bant te rey nañ ko noonu la nit ñi toppoon Jéesu ba rey ko ci bant mu daldi dee ci bant ba bu mu dee ci bant ba noonu lañ ko jëlee daldi dee ci bant ba ngir suñuy bakkaar biibal gi ne sarax la bu yàlla wàccee ndax boo gimee ci yeesu ne sarax bu mot la bii dindi bakkaar yu nit ñi maanaam diggante nit ñi ak yàlla ci deretam fey na pire bu mot sëkk ci diggante nit ñi ak yàlla maanaam sarax bu amul sikk te amul benn gàkk-gàkk bu mat sëkk la ay bañaalem rey nañ ko mais ndax dinañu am ndam déedéet duñu mës a am ndam yeesu dee na léegi ku am xaalis maanaam nit ku ràññeeku moo ko jël daldi ko yóbbu dugal ko ci bàmmeel bu bees bu mu gasaloon boppam daldi jël xeer bu mag daldi ko tëjee bàmmeel ba wante ci ñetteelu fan yàlla mi am kattan te doon mbor bu mag daldi na dëkkil neewu yeesu ci diggi neew ya noonu nag la yeesu dëkkee ci biir néew yi am na léegi noonu mu daldi dund te nekkatul ki ni ko yoonante yi waxe ci seeni téere ci ñetteelu fan yéesu daldi dëkki ay jigéen ñi ñi doon dem ci bàmmeel ba ndax dem defar néew ba nuñ ko xamee woon ci seeni aada bu ñu demee fekkatul fa néewu yéesu te benn malaaka feeñu na leen ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci néew yi nekkatu fi dëkki na te dem leen wax ko ay taalubeem ci ñeenteelu fan ci gannaaw ndekkite ci ndekkitam ba yeesu daldi feeñu ay nit ñu bare yéesu nekkatul ku dee wante mu ngi nekk ki dund noonu la daldi dajale ay taalubem yépp te wax leen ne mu feeñoo ay taalubem jox leen ndigal ne dem leen ci àddina si yépp te ngeen waar nit ñi te ñu tuub seen bakkaar te gëm ci man te képp ku gëm ci man soobleen ko ci ndox te dina mucc maa ngi dem wante dinaa ñëwaat noonu yéesu di wax di jóg di dem ci asamaan ba mu reer ci seeni bët gisatuñ ko wante ñu nga taxaw di sentu ci kaw asamaan benn malaaka feeñ ne leen lu tax ngeen di seet kii dem ni ngeen ko gisee muy dem noonu lay dellusiwaate dem leen te wax nit ñi ne yéesu yéeg na ci kaw asamaan te waare ji kàddu dégg gi tax yeesu dee bant ba yéesu nekkuloon bàkkaarkat wante dafa dee ngir xaajooñu ak bàkkaar dafa dee ndax yëkkati bàkkaarkat bi mu jege ji yàlla ndax dañoo sori woon yàlla ndax suñuy bàkkaar léegi kañ yéesu mooy xarum yàlla mi wàccee ci asamaan te amul benn sikk amul benn garab sarax bu mat sëkk la te boo nangoo yéesu te nga nangu ko ci sa biir xol dina la soril bàkkaar yàlla wax na Jésus mooy suñu musalkat te def ñuy delloo ndax ñu nekk ay doomi yàlla maanaam ay xaaritu yàlla yéesu dem na ni ko téere bi waxe wante histoire mu ngi ñuy nettali ne yeesu dina dimbali ñu bari ndax ñu xam kàddu borom bi yéesu dafay jàngale ne ñaari yoon ñoo am wante ñiy jaar ci yoon bu xat bi ñooy tasek seeni borom wante ñiy jaar ci yoon bu yaatu yi ñooñu soppuñu yàlla te bëgguñ ko noonu la bakkaar dañ ci jële bakkaar ci Adama wante ñu ngi jële yërmande ci Jésus Jésus mooy yoon bi mooy dëgg bi te kupp ku ko topp doo sànku Yeesu nee na man maay yoon bi dëgg bi dund bi te kupp ku ma topp doo dox ci lëndëm yeesu yàlla dafa def sarax jaarale ko ci kattanam ndax bàkkaarkat mën a mucc te bàkkaarkat boobule deeyu yéesu ci bant ba moo ñu feyal suñu bori bàkkaar ndax biibal gi nee na peyum bàkkaar mooy dee waaye mayum yàlla mooy dund ba faw